نكو يا معين وبك نستعين مبكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيغي نيو نيب دي لين زياره رواتينا نك سونو مبكي انترنت يي فتبارك الله دين لين واتي سين واتي واي دي مساو نيغا خامتيني سي نيو نيك تي اي تيس دي ندوكل نيغا خامني نيو نيك بانيخ فتبارك الله واي تام دي سيت بو باخ نيغا خامني نيو نيك تي لالي اوبيتال فيبر ديكو سوخالي فتبارك الله كوم ني كو واخي ci bande annonce bi passé tay secret bi ñu leen indil ndax itam alcorane karim suñu borom neena moy solution julit julit alcorane moy solution am kon bépp ka bo mën am rek bo delo ci alcorane yàlla mën la def nga am ci résultat bu baax inshallah taala motax tay ñu dik ak yéen ci secret fatihatul kitab fatiha bo xamanteni si boko jëfëndiko wé bu fekkee liggéey ci sa jëm da koy dindi waye itam nit ku am rab moo xam day daanu moo xam rab bi da koy yàqal moo xam lu mu dugg du sotti moo xam day yaakaar borom kër affaire bi di di yàqu te rab moo koy yàq yooyu yëpp macha allahu taala fatiha bi ñu leen di bëgg a baaxee boo ko jëfandikoo incha allahu taala yàlla dana tàqaleeg rab boobu ni nga koy defee nag mooy da ngay bind fatihatul kitaab benn yoon boo bindee fatiha ba mu àgg nga jël ayatul kursi yu ayatul kursi yu nga bind ko juróom-ñaari yoon boo ci paree nga bind baatu la tarka bunna tabaqan an tabaq la tarka bunna tabaqan an tabaq nga bind ko 33 fois am na ñaan gu ñoo wax karafilu ñaanu karafilu moom itam da nga koy bind juróom-ñaari yoon soo paree nga bind al mawuzatayni ñaar yi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wa wax ne mooy aar nit te mooy fallaxi ak naasi bu nekk da nga koy bind ñetti yoon soo ci paree nga ut xobu pëftan boo utee xobu pëftan juróom-ñaari xob yi benn bu ci nekk nga bind ci sóoratu ixlaas xul wallaahu axad ba mu jeex nga jël loolu yëpp nag boole ko defandoo ko ci benn butéel wala ci paan boo xam ne di nga ko mën a di nga ko mën a utiliser ñetti fan yu njëkk yi da ngay naan ba pare soog a sangu ba ñetti fan yi jàll nga continuer di sangu rek bàyyi naan bi incha allahu taala lii secret la boo xam ne bu wér la rawatina suñu mbokk soose yi xam nañ ko bu baax dañ ciy faj ay ay ay ay nit ñoo xam ne gàllankoor daf leen dal kon nag mu ngi noonu yalna ci yàlla def jam yalna nañu yàlla wane la waat yal yàlla def dégg ak top inshallah allah ñoo ngi leen di bàyyiloo xel itam yeneen émission yi nga xamante ne si moo ngi suñu kanam di ñëw asalaamualeykum wa rahmatullah barakatuhu Hann TV télé askan bi Hann télé askan bi